ñoo ngi sant suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa eh, xam na kàddu yi nag lu am solo waaye kàddu yi seede lay doon rek ak sant ndax lii ñu fi dajale te ñu ànd ak suñu sunu jur bu baax wi sëriñ Cheikh Awa Balla mu ñëwoon fii tey ci jumaa yi Tuubaa ji jumaa ju mag ji eh, di fi def li nga xam ne moom la fi baaxoo def mooy ndogu yi nga xam ne baaxoo na koo def ci weeru kor wu nekk euh, yàlla dogal nag ñu jàppoon ko tey euh, ñëw indi fi li nga xam ne moom la fi baaxoo indi te muy ay teraanga ak ay xewal yoo xam ne mbooleem ku nekk ci bërëb bi dana ci mën a xew lu mën cee barkeelu euh, loolu nag liñ ci sant suñu borom mooy di ko ñaanal tam mu yàgg koo def ndax lu yàgg la ndax suñu borom defal na ko tawféex Euh, xalaat bii nga xam ne moo am tey jii ci jumaa ji ba ñu fiy dogo waxtu bu nekk yàlla dogal na moom mii daan na ko def këram ay at yu yàgg yàgg ba xalaatu indi ko ci jumaa ji sax ci biir këram googee la sosoo euh, kon bu ñu demee ba mu yaatu ba toll nii tey kon du ñu def lu dul sant ko waaye nag yéene ju rafet saa bu ko nit defee mën na koo àggale foo xam ne euh, xelam du àgg kon bu yàlla dogalee ñu dem ba toll fii tey ba mu yaatu yaatu bi nga xam ne ndax lii nu fi gis tey ci mbooloo wax dëgg yàlla ku fi ñëwul mën ngaa jàpp ne rek euh, ay wax la waaye li fi li fiy dajee ci mbooloo di fi dogee te mu doon nit ñoo xam ne ñu ko soxla la te yool bi nga xam ne moo nekk ci dogal jullit bu woor rawatina koo xam ne soxla na ko te amul fu mu ko defee te yàlla dogal na mu bari fi lool te ñu te doon itam lu ñu teg suñu bët euh, yàlla dogal itam mu xam itam saa bu euh, waxtu wi jotee lim fiy def yàlla defal na mu tawféex noonu bokk nañ ci ñi nga xam ne danañ koy danañ koy fekke jëf yi muy jëf ci ci biir jumaa ji itam waxtu wu nekk man ak moom ñoo koy ànd ndax yemul rek ci ñëw indi fi ay ndogu dem waaye lu lépp loo xam ne lu ñuy liggéey la ci biir jumaa ji loolu da cay xar tànku waxtu wu nekk mu ngi ciy dox di ci wax ba bërki démb rek moo ci mujj ànd nañu fi mu indi fi ci ay kopp mooy yi ñu fi yi ñu fi ndogoo ay junni junni te loolu yaakaar naa li ñu soxla ci ci ci ci biir weer koor gi sax mu ngi caa jeex kon loolu nag euh, jubluwaay bi rek weesuwut jéem a liggéeyal Serigne Touba ci dongaam yi rek loolu rek mooy mooy jubluwaay bi liñ ciy sàkku nag ci mbooleem koo xam ne yaa ngi nuy gis di dégg suñu kàddu itam ñu ñaanal ko ba yéeneem ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba mu mën a mottali loolu. Euh, yéeneem réy na euh, xolam tam yaatu na bëgg-bëgg bi itam rëy na waaye nag doomu aadama fi nga toll rek fi ngay mën a def ndànk-ndànk te xam nañ ne dana ci def ba ciy def loo xam ne sax mënu ko ndax xam nañ ci moom dara. waaye nag lépp yéene ju rafet ak bëgg lu baax rek moo tax di ko def kon moo ngi sàkk mboolem yépp mu ñaanal ko daal suñu borom taw feexal ko ba defal ko ndimbal ba yéene ji mu am ci liggéeyal Serigne Touba ci ci bis bi daal suñu borom mottalil ko moo ngi sant bu baax a baax xam naa dañ koy jox rek mu jottali ay kàddu waaye yéen itam yéen waa Moukhaddamatoul Khidma seen taxawaay bu rafet ci ci biir liggéey bi itam noo ngi koy seeral yàlla te di te te xam ne eh, Serigne mi tax ngeen di jëf am na fay yàlla na leen fay te lu kawe seen jort barkeb Cheikhul Khadim jërëjëf jërëjëf alhamdulilah alhamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu ala man daana bi baxda wax ji mat na mat bu baax Mbàkke bu baax baax lay waaye nag euh, wax defoon na waaye lépp rek day fekk delluwaat ci yéen lu bokk lu bokk doo mënuñ koo séddoo rek la ku nekk war a jàpp doon na sama bàyyi def defuma de yéen la ndax euh, li ngeen Euh, jël seen temps jël ko seeni euh, lépp nekk ñuy liggéeyal sëñ bi nit ñi taxawal ci mbedd yi taxawal rek luñ laal dañoo fekk ne kon dañ leen di jàppale rek waaye euh, loolu la bàyyi bàyyikat soo ko ba ko junj wax naa sax dama ci kàddu kàddu ndax waxam mooy sama wax ndax ñoo bokk lépp yàlla waaye da fekk daa am loo xam ne dañ ko war a leeral baax a baax moo di suñu bokk yi nga xam ne sëñ ji la xam nga leen mooy bokk yi nekk ci àll bi Euh, précisément Italie dañoo sonn lool ci lii fan yi dem naa fa li ñëwoon fa la umee def fa fa ñëwaat waaye bi ma demee saa si yàlla def na dem naa fekk ñu may tuddu sax ñu tudd si liggéey bi te fekk xamuñ ne maa nga fa. ma euh, duggee ñu leen ni ki néeg ñu dugg fekk suñu tubaab mu fekk fi néeg bi daanaka yéen ñu tudd léegi ma jur ma tudd tudd leen suñu tubaab gi waa ma xam ne ma fi rek ñoo yor affaire bi waaye ñu leen di sant bu baax a baax di leen gën a soññ balaa bisimilah di leen gën a soññ di leen gën a ñaax THC de la microbe ak yow sëñ Jili yéen a toog encore ba ñu indi ba ñu indi kopp yi xamal ni man nag du ndax dem naa fan yii nii gannaaw bi dem naa fa dem le ci weer dem naa fa ci weer wi ese nañ ñoom xamal nañ ne ma ne du ñëw ci kopp dong fas yéene kenn bu kopp ma maratee lañ bëgg danañ fexe lu ngeen soxla ñu xam ko bu doonte rek lépp mën lañu seet la def ñu ñu koy indi di ko def noonu kon loolu waa Brisa ñoo ko wax Brisa dañoo njëkkee Euh, ma waxaat ne waa Rimini comme dañoo ñu a sori te jokkoo bi xaw a jafe man leen kon comme def nañ ñaar te ñaar du te du ñaar na fexe lu koy def kii xam ko ba ma def leneen du loola. ndax euh, buñ soxlaa euh, téeméeri te indi indi nañ deux cent vingt cinq mille kopp yaakaar nañoo ren te cent mille ko cent mille soxla yaakaar naa daal waxoon na ne luñ denc te suñ tubaab kenn war a dara kon dañ koy jëfandikoo ci màggal gi muy liggéey bu rëy ndax màgg moom dëkk màgg suñ tubaab la. bu noppee day jubli ci la des ñu def ko ci gàmb gi mu yëf yi yëf suñu tubaab day dem dëgg ko gën suñu tubaab kon kon nañ fexe ba at ñëpp rek ñu fexe ba kopp yi am ba màgg gomb ñu am ak liñ ci mën a jàpp ñu topp ko ca kon liggéey liggéey loolu boo boog laabiri googu lay def sama mbokk yi xam ne ñu ngi ci biti ñoom nag jéey nañ ko noo xam ne gëw ma ne dana nekk loo xam lii lu lu tutte doon léegi ndax jamaye bi nga xam ne Serigne laa moo ko joxoon ndigal foofu ñu nekk ca ñeer ñoom dañ ko boole seen liggéey lépp lu ñu defati ca Euh, section bu nekk dañuy wax jawriñ ji ne ko mu jëm ca ndaw yi kat na ko bàyyi xel ba ñoom fu ndaje dinañ jël dara copp ca def ca bàyyi ko ndaw la suñ demee ba mu jub si nag lépp jéem seet la waaye ki mu xam ne fa bëgg njëme ko foofa suba bu njokko ñu de ne jokkoo suñu daal yéen ñi laaj leen ba xam bu ñëwee jëndee ko pren ñëwee jëndee ëllëg wala bu ngeen soxlaa ñu indi loolu rek kon daal moo wax nañu ko ñoom ba ñoom ñoo ko sa ñoom ma ko junj ne ma daal fas nañ ci liggéey noo xam ne daal dañuy rëccu si gannaaw rëccu na amu ci ndax nañ ko doxee ñu ñëpp àndoon rek suñu Xaadim Mbay moo doon jiite woon foofa am na jëmm yoo xam ne ku mel ni Serigne Sam Diop lu bëree bëri maa ko doon wax tey jii suñu caméra bu yàgg boobu nga xam ne euh, moo njëkk ci fii bi ma ko wax tamit damaa daan dem fas fas yéene lijjanti ko bi mu ko yëgee daal di may woo téléphone ma xaadim ma ñoo waxtaane xaadim Mbay ji ñu ne ko bàyyi seexu wàll mi day daa am caméra bu ko suñ jiili woo dem ne ko li nga soxla ca euh, ca jumaa ja ab mixeur la caméra xaadim Mbay wax ko ne ko waaye yaakaar wax ko kenn mu ngi wax moo ma téléphone ni ma damay ñaan ngi dara sëñ Tuubaa rek bu kenn yëg boo kenn yëg ma ne ko wax ne moom bu kenn yëg rek si Sam Diop ñoom waa ahlu ñoo ko daal di jënd caméra ba ak mixeur bi lépp ne kenn ba may dem aéroport ba ma ne su dem ñu ne ma suñu kañ ngay dem bu man mosoon ko te utul mi dara kon su na wax ma ne naa bàyyi su ma génn Amérique dem ma ne ko du ñu su ma ngay dem quoi mu ne di jël kenn daw ko biyee

pour soññoo ni la tàmbali la waaye su passé kenn gisati ndax euh, dañoo euh, dañoo xam ne ki liggéeyal moom bu lay fay da lay fay web defe naa lii ba ma ko tàmbali ban ñaar fukki junni laa fere ñaar fukki junni laa njëkk def ci lii muy muy deux mille mbaru wax amatu ko ndax la ma def lépp ay bitax laa ñu noonu bokk ak ay sa mbokk bésu bi ak ñoo ñu toog ca kaw terrasse ba ba ca topp terrasse ba xat ñu wàcc suuf ba ñu départ ñu yóbbu ko nit ñi nekk def juróom fukki gannaaw ak nangam ba sàgg ba 2007 lañ door a ñëw fii kon lu tàmbali ci fukki ñu nekk million ak deux cent yaakaar naa ma ci jox tey ci euh, liñ liñ fere tey un million deux cent nangam mille ci benn te yaakaar naa si siñaa faanam wala si afi nee na ma gisul gën a barkeel ma ne ko nu ma dama dégg Dakar ma ne ko boo taxaw mbedd ñaa ngi joxe te fii la tàmbalee kon am ngeen dam am ngeen ndam bu wér a a wér xam ngeen ne suñu tubaab li ngeen leen liggéeyloo nangu na ko loolu laa ba indi kopp yii la koo xam ne suñu tubaab am na ah. biñ koy waxtaanee fi ñu toog Italie matul deux njëkk ñu jóg kopp yi moo njëkk Touba ñun ñu ngi waxtaanee ba avant ñu jóg kopp yi ñëw Touba mm-hmm. te xalaat la woon sa jiir ñeeg foo nekk mu ne maa ngi fi taxawal mu taxaw mu ne mu ne fukk ngi bëdd bi génn jiir foo nekk mu ne maa ngi bëdd bi

Bulsara la ñu waxee. Bulsara la ñu wax ñu ñu jógee nag fan yii fan fa jógee. dafa demoon ci umtile yi dafa laaj umbi di ma leen wax. comme ñooy def nañ loolu waaw ndax ko ko joxoon mbusoo bi boo ko boo ko café du sotti kon yéen waa kon xam nañ ne mbusoo bi ñu ko jox te kopp day ànd ak café te am na ko am gi moom ñoom ñoo bokk dëkk bokk sant mooy mburu bali ma sàmba kon kon ko xam daal waaw ah. na ko doon soññee beñe bi léegi. beñe bi moom dama ci bañ a wax ndax dañu may ay jafe-jafe waaye daal euh, li ma wax léegi mooy li ngeen mën a dox ak bu seen tànk waajur ya ak bu leen ca ca tàmbali ak lu tàmbali sax ndax nu moo demee lañ leen jànkonteel ñun ci ay jafe-jafe amuñu ko la ñu dugg ñu daal sangu ba set teg waaye leer na ma ne ñoom daañu toog ay fan yoo xam ne ñoom dafa naan sax ba sango kon teewul daañu jàpp di laab di ñëw si barab bi liggéey ba barab bi toll tey kon tàmbaleeguñ ku tàmbalee gudd nag da ngay fexe ba déglu kenn toxal am yoonu bëgg ko ma sum la yoon ba mën ak ba njëm bi ko doxee dañ dem ndax boo gumba kenn doon na xool ba nga xool ko sa bopp soo tëxee kenn la déggal ba nga déggal sa bopp boo eh, amee nu koy lu ba mën a wax kenn moom laa jay kon nañ def loolu am ak sumb ko mi yooyu ñu ci ma ngi defoon ba am jumaay toll nii nañ fexe ba bi fi jógee ñun suñu doom yi wax nañu amañ def doom yi incha allah saa ma teg ci yoon ak yow